asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuy bokki jullit bokki taalibe yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci liggéey bi nga xam ne jógoon nañ sóobu ci te yàlla rek tax ngir bëggoon na fexe ba wàññi jafe-jafe yi nga xamante ne amoon na ci ndoxum dëkk bi nuy sant sunu borom bu baax ndax luñ ci am rek ci ndimmalam la waaye nun mënuñu dara xamuñu dara di sant maaw raxbati ci njiital sëñ Moustapha Diagne ndax luñ ci bëgg-bëgg a liggéey it bunu ubbiwut woon bunt moog sëñ Ousmane moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma ko it duñ ci mën a dox nii ci doxe kon ñu di sant bu baax ci yittewoo gi ñu yittewoo dëkk bi lileen leen ci sëñ bi dénk ñu sàmmal ko ko ni mu waree ba tax ñu mën noo ubbil seeni bunt ngir jàppale leen ci liggéey boobu kon ñu ngi leen ci sant bu baax dafa tolloog nag ab liggéey boo ca sóoboo sóobu ca ñépp dégg la ca soo noppee fa nga ca yam war ngaa joxe ay résultats yu leer nañ ca nga doon liggéey mu mel ne gox yu bari yàlla dimbali nañu ba li fi doon ay wan yu tëje ci li ëpp ñu mën a wax ne ubbi nañ ko ba tax na gox yu bari buñ mënta am xébir bi da ngay am xoror kon loolu sant sunu boroom la mu mel ne fi nga xam ne moo ci am rëq-rëq boo demee tindoo di am na tiwo bu jógee foofu jëm bàq ya tiwo boobu moom nemmeeku nañ ne amul ndox ña ca aju ñëpp amuñu ndox am na tiwo bu ci soqi koo jëm soowu moom it nemmeeku nañ ni amul ndox waaye ti wooye ginnaaw fam ñu ko xëccoon ci réseau bi lañ leen wax nañ wut koon plomberie ñu jéem a xool ba xam lan mooy rëq-rëqab ndox mënta agsi ca ñoom bu dee côté kër sañ ñaan ngay continuer trente ba ca yoonu Gédé trente booba moom alhamdulilah léegi bokk nag jafe-jafe waaye am na ndox jafe-jafe bi nga xayee nag mu diis lool te rëy lool moom it xames na li nga xam ne moo ko waral te nan ko waxee woon mbir mu ne it nag luñ ci àgg ta xam ko te askan wi war koo xam dañ ko war a xam ba nga xamante ne buñ ko mënta saafara xam ne lii mooy jàngoro ji ndaxi jàpp naa ne gëstu mbir ba xam lay jàngoro ja nga nëbbu ko askan wi it ci li nga xam ne ak maandute la fi gën a metti mooy li ko tàmbalee ka sëñ Seex Bambali eh, jëm Daaru Xuddus jàpp new yaag dereya ba jëm ca baseem suñ murtala ñooñu moom seen tiwoo dafa amut dara ci ndox sabab bi topp nañ ko ndax ñoom ñëpp jàmbatoon nañ ne forage bi nekk ci université bi seetlu nañ ne biñ ci defee isinu ndox bi ba léegi lañ tàmbalee am ay jafe-jafe ba tax na fan yëpp ñu ngi ci démbit bañ naa ko ba biñ ci demee biñ ubbeewan yi sonde ko biñ sonde euh, tiwo yi fekkuñu ci dara dara ci ndox foofa it la wa daal di woo sëñ Moustapha Dieng mu ànd ak sëñ Pablo ñu ñëw bi ñu ñëwee it ma ne leen lii de xaw na maa jaaxal ndax forage bii dañoo wax ne bokk na ci forage yi ëpp ci dëkk bi te amut dara ci ndox te wooy te wooy ni ñu ko jegee amatu 300 mètres amuñu dara ci ndox kon faaw ñu def ci ay gëstu ci la ñu demee ci euh, usine ba Pablo ci boppam wax ne. jamono yoo xamante ne taal nañ usine bi moom tuyau yi du mën a am ndox ndax li nga xam ne moo waroon dem ci tuyau yi usine bi da koy produire te bañ demee it nag noonu la amee ndax biñ demee ñu fekk li nga xam ne moo jëm si ci dëkk bi wala séddalikoo ci trois tuyaux yu trois cent quinze mu nekk cinquante deux mètres cubes par heure bi ñu fayloo machine bi ñu del siwaat dal di am cent cinquante cent quarante cinq mètres cubes par heure kon mu mel ne heure bu ñu taalee machine boobu nga xamante ne mooy defar ndox mu neex mi ñuy jaay dana tëye quatre-vingt-dix-huit mètres type yoo xam ne war naa dem ci réseau yi du fi demate kon ñooñu li leen xañ ndox kon moom mooy usine ba ah loolu it nag buñ ko xamee faaw ñu leeral ko bañ xam ne ñoom vérifié nañ seeni wan benn wan tëjewu ci waaye nag li nga xam ne moo leen xaaj ndox nga xam ne ndox mi waroon na ñëw ci ñoom maanaam usine bii nga xamante ne mooy defar ndox mu neex mi moo koy téye lu ci ne rek leeral ko ba ñi nga xamante ne ñoo ca nekk xam ko wàññiwul dara nun nag mépp mbooloo moo xam ne noonu koy nekk te xam loo xamante ne xam nañ ne mooy gàllankoor koorob loola te duñ ko wax di suñu digg ca mbooloo moom duñ ca wax ndax it lenn rek moo nu ñor mooy ngërëmal sunu boroom waaye leneen niruñu kenn nit mënunoo taxa eh, fekk lay dëgg ñu di ko bañ a wax ngir yow ndax jàpp naa ne ku fi bàyyi ko bay dem di wuy ji boroomam buñ lay denc kenn du la wéttali ginnaaw kenn du la wéttali nag bala kenn na taxa nëbb askan wi li nga xam ne mu ngi leen di lor te duñ ko xam kon daal fii lan yamale liggéey bi nag tey muy liggéey boo xam ne noonu nu ko waxee rek suñ xol moo fu doon jóg ñu tàbbi ci liggéey bi ngir yàlla def tawféex ak ndimbal ba jafe-jafe yi nga xamante ne eh, am na ci dëkk bi ci ndox mi wàññeeku kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan sunu borom mu defal lu màggal jàmm ak salaam defal lu màggal goo xamante ne dana taw fiixe lool kon ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. may jéglu baax rek ay kàddu yu ma ciy dolli mu des ci eh, taxawaay boo xam ne ah war nañ koo taxawee. ndax wax dëgg liggéey bu ne am na wu yoon ndax jàpp naa ne bu fekkee da ñëw gas ab forage fi birëb boo noppee tiwo ya nga fa fekkoon te ñëpp branche la ca nga maayene ko nga boole ko ak forage bii nga gas dana tax ñooña mën a am ca ndox moomee nga indi ndax loolu it fitna la ci dëkk bi forage yi bari na waaye danga gis forage boo xam ne buñ ko gasee ba àggal gas tiwo bu mag mu dem fu sori te ñu baree bari mën naa am duñu am doole yi mën a jënd kul yëpp mille walla wala soixante mille di ko monte ci teew bu mag bi boole kook autorisation ba kon la gënoon ñoom itam forage buñ gasati ñu fexe ba forage sax moom doy na waaye forage yi ñu gas ñu fexe ba mu am pompe yu baax yu mën a pompe ndox te bañ cee def pompe tool pompe yu baax ay trois cent mètres cube ay quatre cent mètres cube ay cinq cent mètres loolu bu ñu ko monté ci forage yi dëkk bi am ndox mu doy sëkk ñu boole kook it gëndale tiwoo yiñ fi fekkoon te ñëpp branche la ci forage yu bees yooyu ñuy gas ñuy gëndale tiwoo yi mooy gën tëral ñaari tiwo yu mag tëdd ci mbedd benn ba am ndox benn ba amul ndox te benn ba amul ndox boo ko kër kenn xaalis bu bari la te nga mën a jël boobu amul ndox def ca ndox ma dem ba fam yem li nga waroon a tër yóbbu ko foofa nga tasaare ko ci ña ndox ma ëggagut ci ñoom ñu mën a amum ndox lu jàpp naa ne moom it ah, sëñ Ousmane ñoom faaw ñu taxaw ci. moo sëñ Moustapha Diagne ñoom ndax it euh, liggéey bu mu mën a doon day am contrôlé ndax nit ki bu fekkente ne danga koo bàyyi muy liggéey noonu di dem te amul benn contrôlé ah lu ne mën la caa am lu mën la caa am ndax tiwo yi nga xam ne ñu ngi tëdd ci biir dëkk bi te amuñu ndox daanaka tollañ ne tiwo yi tëdd am ndox loolu nag jàpp naa ne ginnaaw benn tuyau rek moo jàllale ndox bu ñu defaree ay forage ba pare ñu jog jël tuyau yi am ndox dugal ko ci réseau yi ñu fi fekk lu ca am fit ñu réparé ko te fa amagul ndox ñu yóbbu fa tuyau yooyee nga xamante ni moom lañ bëgg a tëral ci mbedd yi waaye ay kilomètres kilomètres nga dugg fa ñaari tuyau trois cent quinze tëdd fa wala ñaari tuyaux deux cent soixante tëdd fa loolu jàpp naa ne moom lu ñu war a jug la lu ñu war a seetaat la nañu jël ndox mi lëkkale tuyaux yi ancien tuyaux yi ñu fi fekk dara sikku ci nañ ko lëkkale ndaxit nag maanaam effort entreprise la buy gañe ay marché li ko soxal mooy buñ mënoon a gas téeméeri forage Touba arrangé na ko ndax moom nañ ko jox marché bi mu liggéey def ci poosam su ko defee nag dëkk bi ñuy liggéeyal ñoom ñoo war a am fayda yi contrôle yi ñu leen di liggéeyal ba xam ndax it nag jàpp naa ne di gas ay forage di dem rek te du jariñ dëkk bi it loolu amul njariñ kon euh, lu de lu mel ne kon loolu ab liggéey la boo xamante ne bu jar jóg la bu jar a bàyyi xel la dëkk bi daal li fi war liñ fi war def bari na lool kenn ku ci ne nag lañ la dénk góorgóorlu ca loo man loo ca man ndax ñu bari nekk ci dëkk bi ñu bedd la yëkkati dara dénk la ko ñu mën a wax ne Sëñ Tuubaa moo la ko dénk loola laaj na yitte ju kawe ju mag noo ngi jéggalu ñépp di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf di sant sëñ Mame la Diop ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw na ko ci liggéey bi di sant sëñ bu Jóob jànnatu moom itam ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nañ ko ci liggéey bi di sant bu baax it sëñ Daam Ja maaw raxmati ak sëñ Cheikh Njaay mi nga xam ne moo doon pëlëmbër bi ñoom it wax dëgg yàlla liggéey bi rafet nañ ko lool mat nañ sëkk taxawaay bi ñu war na taxawee ci liggéey bi